sant ngërëm ñel na leen mbokk yi safoo di bàyyi xel leeral TV amati nañu mbégte comme ni ñu koy defee saa su ñëw ci tey askan wi tey nag bu ngeen xoolee sama ginnaaw oto yi ñu ngi forcé ngir mën a jàll ci télé bii nga xamante ne bii lu toll si ñaar fukki a ngi nii dafa yàqu yaxeet fii nag moo dox diggante Thiaroye Gare ak Guinaw Rail Nord nekk ci banlieue bu Dakar askan wi ñu ngi koy dund lu méttee métti loo xamante ne bii daw nañu fu ne jooy nañu ko fu ne wante ba léegi France kenn jàppalewu leen loolu nag moo sabab daal ñu daal di génn ci mbedd mi tey jii daal di def ab doxub ñaxtu bu ko defee rek askan wi mën na wax li nga xamante ni bi rek moo leen métti ci seen tali bile ngir autorités yi jàppale leen ko defaral leen ko ci ni mu gën a gaawee askan wi nag def nañu doxub ñaxtu ñoom chauffeur si ak itam ñi nga xamante ni ay jaaykat lañu daal di ñëw wax jafe-jafe yi nga xamante ne bi ñu ngi koy jànkuwanteel ci tali bii lu tolloog ñaar fukki at ñu dem xool leen daal di ñëwaat léegi-léegi ci Leral TV ak Leral point net ah jafe-jafe ji moom metti na trop parce que da ngay teg yenn poids bi ñëw amoo fenn foo jaar fudul fii te affaire bi boo xoolee diire na pendant ay ati ati at mun nañ ko xayma ci ay dix ans yoo xamante ni bi mu ngi yàqu kon nag loolu war war nañu yërëm population bi xam ni fii li fi yeewoo ci baskan ba ak famille bëri na te fii la ñu am di marché yi kon donc war nañu mën a defar yoon bi ah ñëpp gis ci seen bopp gàllankoor oto bi moom tata yi ci ëpp fii dañoo paan ñu ngi damm ay euh, programme dam ñu ngi yàq loo xam ne vraiment yoon bu naqari moo ko indi loolu nag ñàkk defar gi moo ko war ak yoon bu baaxul bi état Sénégal kay xam ne lii bon naqari na population bi mais amuñu ci benn pexe kon nag ñoom lañ ci yaakaar ci wàllu ñu defar ko lii daal mun naa ne lu mu déew déew dindi nañ ko lu mat vingt ans vingt ans moom dund nañ ko ci yàqu-yàqu yi entre poste Thiaroye ak euh, entre Thiaroye ak poste Thiaroye vraiment doy na waar de moom wax dëgg yàlla vraiment waaw dana waar métti na trop buñ sañoon daal wax dëgg yàlla ñu defaral ñu ko ndax suñu oto yi li ñuy yàqu fii bari na lool wax dëgg yàlla buñ ñu ko defaral daal moo gën lii moom métti na trop trop trop trop trop wax dëgg waaw nañ ñu ko defaral ci nu mu gën a gaawee buñ ñu ko defaral daal dina baax waaw askan bi de moom mooy priorité xam naa ne moom képp koo xam ne yaa ngi ciy politique te jàppale woo askan bi yaakaaruma ne moom sa politique dina dox askan bi a baax a baax a baax xam nga ne lii moom wax dëgg yàlla yéen a ko gisandoo yéen média yi xam yàlla doy na trop waaw luñ ci luñ luñ ci luñ ci autorité yi moo ñu gënal. waaw situation yoon bi moom dañuy répété waat rek liñ fi waxoon daaw quoi parce que daaw heure bi def nañ ci benn sitting def benn point de presse comme niñ ko defee nii ñu jox ay ay plus rapidement possible lañ waxoon dañ koy defar ba léegi gis nga ni waat nii li ñu arrivé woon rek moo ñuy arrivé waat quoi kenn mënatul a liggéey fii suñu parents yi mënatuñoo génn suñu maire yi mënatuñoo génn parce que oto yaa ngi coupé di dugg si biir koñ yi ci biir marché bi yor yi ci buñ jógee fii ñi ngi jaare léegi Pikine wëri wàcc pont bi mën a dugg ci biir marché bi te dëkk ci biir dëkk bi ci dëkk ci koñ bi fii ma loolu jaaduwul quoi lu état war a taxaw la defaral nu loolu quoi waaw lii de vingt ans ñoo koy dund chaque année dañuy am lu ñuy wax dañuy dig rek te nii lay demee quoi li mu ñu xañ bari na parce que lu ñu liggéey suñu matériel lañ koy delloowaat lu ñu liggéey suñu oto lañ koy delloowaat te du tax ñu am ndam du tax ñu am si ndam parce que soo te boo ñëwee dangay ngay jànkoonte waat jaar fa nga jaaroon même boo ko bañee da ngay jaar fa nga jaaroon léegi soo ñëwee li ngay li nga li nga am gàññe woon da ngay delluwaat si oto bi quoi xam loolu du rendement ay pièces nga koy jënd def ko sa oto yàqal nañu lu bari parce que mba ñoo ñi nga xam ne ñii ñooy commerçant yi ñu bari tey boo nee leen marché caaro yi la laa jëm euh, sama bagage marché caaro laa ko wàcc ñun sëfootu ñu bari du nangoo ñëw bu normal deuxièmement tamit euh, clients yi tamit tey euh, boo ñëwee war a war a dugg ci marché bi oto yi fii la ñuy nangoo yam da ngay dem jëliwaat benn tricycle mooy cag-cag yi war ci évacuer bagage bi di ko indi sa camion te loolu yow yaa koy defaat ci sa frais bopp wala nga jël saret wala ngay wut ay manebar ñu koy yanu nga nga joxaat sa xaalis bon situation bi comme ni ñu ko waxee suñu précédent bi waxee fii jafe-jafe yi dafa bari ça fait presque vingt ans ñu ngi toog voilà donc souffrance bi fii dafa metti donc Agirut su fekkente ne moom porte ne war ko defar na ci jublu on va pas nous dire a pas de l'argent l'argent est là en wolof donc li ñu am rek mooy ne ko Agirut defar parce que defe naa du problème xaalis moo ko téye

vraiment que ñu defaral ñu goudron bi dans les plus brefs délais mais ok économie bi économie mënoo ko estimer parce que déjà marché bi boo gisee li fi nekk ci saleté te li ko waral lépp mooy ndox mi jóge fii moo duggaat ci biir marché bi donc dañ ko war defar mu nekk tali boo dafay am caniveau ba lépp lu jóge ci biir marché bi ci wàllu ndox mën a jaar fii mën a génn dem géej c'est pas loin donc économiquement vraiment c'est un manque à gagner pour les deux communes ñëpp ko gisandoo jafe-jafe yi ñuy bi ak ñi nga xam ne ñoo nekk fii di fi liggéey parce que yaakaar naa ni li war li gën a tax ñun conseil municipal yi ñu ñëw porter combat bi ànd seeg population yi di ko xeex jafe-jafe bi fi am bu yàggul dara barki dem moo njaay conteneur moo fi daanu si buntu palaasu jàmbur parce que munoon na fee rey nit mais yàlla dogal na reyul nit du ñu xaar nag ba mu rey nit ñuy doog génn moo tax lii ñu ne dañuy génn ànd seeg population bi yëpp ku mun a ñëw ñëw ku munta ñëw it ñun ñu dem moo waral ñu génn di xeex combat bi parce que xam nañ ni lii du problème ay affaire maire ki ay ay ay conseil liggéeyu état la rawatina Azurut bi nga xam ne ñoo ko porté daaw dañ ñoo waxoon balaa décembre incha allah dinañ commencé travaux yi yàlla dogal 2023 décembre mi ngi waaj a ñëwaat te gisaguñu dara lu ñu commencé. moo tax nag dañ leen di alerter alerte bi nag mooy ñun pare nañ suñu lépp. pour xeex ak ñoom si combat bi pour suñu tali baax mbaa mu bañ a baax ba faw bañu ñu si dara nag suñu baxan lañ si teg dañ leen alerte bi mooy à partir aujourd'hui tey jii nii dinañ leen may du baare dara parce que ñëw nañ si njëkk ak teraanga ñëw alerté wax taaluñu defuñu dara suñ ko suñ suñu fi gisaatee rek nañu xam ni leneen mooy li ay baxanay tuuru wala ay oto yu ñu taal la ñuy gis wala dëkk bi dinañ ko taal moo xar ñaar léegi nag ñi ngi siy woo ñi nga xam ni ñooy waa Azurut ñu ñëw nu mu gën a gaawee ñu commencé suñu tali defar ko ndax ñun si ko Sénégal la ñu bokk rawatina ñoo nekk buntu Dakar instant ni oto yëpp comme bi wax sànq ñëpp presque Pikine la ñuy dem jaari ji rawatina léegi ñun suñu biir koñ yi dem nañ ba xam ni suñu doom yi ñemeetuñ leen génnee si parce que oto yi fu ne la ñuy fëlee te chauffeur yi ku si nekk ak na ngay moo tax suñu nit ñi nangootuñ leen génnee rawatina xale yi génnatuñ si biir kër yi nekk mel ni ku nekk si prisonnier moo tax daal lu ñu mën a jàppale daal si tali bi ñun ñu jël ambulance boo xoolee léegi biir camp ba la ñuy jaari ak i Pikine parce que mooy li ma la wax rek oto mooy jaar rek ambulance mënut am fu mu jaar moo hôpital yeeg yëpp yàlla daa dogoon ñu war a génn ñu génn mais nag ñi ngi ñaan daal ñu defaral ñu tali bi si nu mu gën a gaawee. indi naa fa fay partenaire mun ñoo yegg ci mairie bi ndax ndax tali bi bon gi mu bon dañu leen mujj dajeeg ñoom appareillage waxtaan li ñuy waxtaan mm-hmm. donc loolu manque à gagner la pour suñu commune yi mm-hmm. léegi nag population bi nag comprendre na ne mm-hmm. commune du moom mooy defar lii état moo koy defar via Ageroute ñu ànd ak population parce que ñun aussi dañuy rappeler ne ñun ñooy mbindaanu population bi bépp kuy conseil municipal yaay mbindaanu population bi lu population bëgg ci nga war a ne lu population wax ci nga war a nekk donc moo tax ñu ànd ak population bi yëpp porter seen parole xamal leen ne ñu ngi seen ginnaaw ñu ngi lancé appel Ageroute wax nañ nag ne mu ngi ñëw en octobre ñu ngi leen di xaar mais fii ak octobre nañ ñu def si ñu toog ñu confirmer ñu de dañuy ñëw en octobre sinon dañuy jël suñu responsabilité parce que trop c'est trop ñun c'est comme si ñun bokkuñu Sénégal non sonn nañu trop on est très fatigué non jafe-jafe yi ñu man la dernière fois sa benn euh, dëkkandoo dafa boot doom yi di xuus si ndox mi dama jooy alfa wax na ko keroog benn conteneur daanu na fi maar day taal bu fa reyoon nit dañuy ne ne c'est-à-dire c'est la ñu ñëw arrêté loolu il faut que ça cesse nañu ñëw defara suñu yoon bi ça ne fait même pas un kilomètre et demi nañu ñëw defara suñu yoon bi nañu ñëw defara suñu yoon bi un point un bar mu ngi noonu comme ni ngeen ko gisee oto yi gis ngeen ko lu métti la ñuy dund askan wi di ko joytu saa su ne kon nag mu mel ni nekk na mbir moo xamante ne bii urgence la tey ñu daal ci mën a taxaw parce que yàgg na ñaar fukki at du ñaari at ñaar fukki at du yoo xamante ne bii jafe-jafe bu ni mel ñu ngi koy jànkuwanteel fii ci tali bi nga xamante ne moo dox comme ni ñu ko waxee diggante Caaroy Gaar ak Ginnaaw Rail Nord fii nag jot nañu daal di fi ñëw jàppale askan wi ñi fi nekkee Euh, parce que wax nañu ko ci seen biir wax dégg ngeen ko wàllu koom-koom gi mu ngay suuxee wante itam euh, wàllu wér gu yaram askan wi lu bari mu ngay am gàllankoor gis nañ fi nag loo xamante ne bii daanaka yombul ñu gis ko ci Sénégal muy télé bu yàqoo ni oto yi sax gis ngeen ko nañuy forcé ngir jàll loolu nekk loo xamante ne bii tey jamono ji yittewoon nañu ko lool ngir ñu taxawu leen ci balaa lambay di ñaaw kon nag mbokk yi foofee la ñu yemale tey reportage bi lée jaajëfal leen bu baax a baax ci teewlu bi dig daje beneen yoon lay doon incha allahu rabbi ci Leral TV ak Leral point net